mooy réserve Ferlo Nord euh, tey jii espèces yooyu démultiplié nañu ba nekk 500 xam ngeen ni boo jëlee espèces yooyu yëpp nga dugal leen ci benn enclos épidémie mun na am mu décimer ko feu de brousse mun na am mu décimer ko c'est la raison pour laquelle pour euh, préserver li nga xam ne moom mooy espèce boobu ñu wax ne privé yi mun nañu signer ak ñoom ay ay protocole ne def leen di wax ne mun ngeen jël ñaari coupe yóbbu ko couple qui ci moom ay moomeelu état bi la sous la direction de des parcs nationaux su fekkentee ne am na meññ nañu ci meññeenteef boobu nga xam ne meññ nañ ko benn partie bi état bi moo koy jëlaat beneen bi eh, ki nga xam ne moom privé bi moom moo jël eh, localam investir ci bu fekkee ne dañu bëgg a digle càngaay dañ ci war a mais encore une fois il faut ñu jàpp ne li ñuy xalaat amul awma ci benn intérêt intérêt bi moins intérêt état du Sénégal. dama ne franchement je suis très à l'aise très à l'aise parce que li nga xamné amna amu ci lu ci irrégulier amu ci lu ci amul lu ci lu transfert ça a été fait dans les règles et dans les règles yi nga xamné ñu def yépp def nañ